jësal Xaadim. Xaadim caméra yi dañ la dal de. waaw waaw. léegi nag baax sama soxna si na leen noppalu. loolu laa bëgg ah. ndeysaan. demal demal am na kii da koy yóbbu de kii da koy yóbbu. Naiko tu tumepata wahali. Mama, dugal bu baax. ñu ñëw nii waaw. Xaadim su sama mama. Aja bismillah. Eh. Dugal sa photo bu ma la jël. c'est bon ah. yes waaw. kontaan nañu de. waaw waaw waaw. tey ñu ngi waaw. léegi mu yéeg wàcc waaw. da dem ci milieu bi quoi. jox ko pochette bi. moo doon toppale bi ci boole day nag sa bidu mu deew de donc may ma bi may nga ma fa kaasa Now, now, we're going to do it. Marie sourire. Seen tubaab ba kàlla boo ñëwoon ba kàlla mais bu ko bañ a jëf. Aja aja. Marie su am na góor bu baax waaye xaadim am na jigéen bu baax. Ndey bu baax baax na bay bu baax baax na waaye barke bu mu jënd ak moo tax xoolal. day yóbbu waxtaan day yóbbu waxtaan waaw day waxtaan ne waaw Him then, home in your heart. Inshallah. Thank you. ku dis photo yi rafet nag dootoo photo de parce que dafa am sonn day dem noppalu bi ngeen concentré wu kuy photo nga photo rapidement Ah. Asia. Oh, sao được sao được không? Am am am. Am am pila am am am. Mana ko tubaab ba kàlla bu la neexee de. yow nga bu say see day bu sa jikko rafetee loo sol bu rafet. bu sa jikko bu rafet. yow ne ko su jaaba bu rafet ndax ñu woo nga jël kër gi ñu woo bés kër gi ñu woo lii di kër gi. Serigne Khady bi la jox waaye man ngaa def moom ndax yaru nga maanu nga teey nga civilisé léegi xaaral ma faral ko indi weer même ma faral ma faral ko indi weer. man su ma la jënd. bu ne bu yaroo respecté ko comme koo kii la ci doon ko ci wax lan lay jox. sëñ Fatou ma ko. jàmbaar sëñ mu laa laay faal yow kii nga mën a am. ndax déggal nga sa baay déggal nga sa yaay. am nga jox bi jàng jotee nga jàng bi liggéey jotee nga teel a liggéey bi tekki jotee nga tekki ban soxla jotee su baax nga am yàlla yàlla def ko jàpp. man su mbay bu baax baax na bay bu baax baax na waaye. wala bu yàlla def nga service nii la diggante di def. say jëkke lalal nanu la say goro lalal nanu la yaa ko liggéey. boo solo waa nga takk jamaata goro yi déglu jëkke yi déglu dara. Maricha Maricha.

ok pare. ah mais eh Disa. Disa ye. ne ko mu ci tuuti rek kay solos jógal tuuti rek solos solos. yaa ngi feeñ waaw. voilà. non non man bëgguma ko dawal bëgguma ko dawal bëgguma ñu tiktok man Pokoknya TikTok, mau tahu pun mau. Kalau kalau dana ko soxna si soxna si génn borom bett la borom bett la pousa waaw may leen may leen voilà am am kam naa ne yow waaw sama war a doon yow na day élément taxawal. daa ko wàññi dara. élément taxawal. may leen may leen Jangan ada, ada. Marichou Toubar Fakal la visiteel boo toogu toon ca yaay ay super lañ lay defal ak ay petit kaw waaye lii jigéen ju baax la koy defal jigéen ju yaru koy defal boo toog ci wetu ndeyam ba dajee góor gu mu teral bu fekkoon ne ci mbedd la fekk ay petit kaw suuf ay super ngay am xaaral xaaral ñëw xaaral xaaral muy ñëw xaaral seen xaaral mu ñëw tubaab fakal la nawle dafa foote nawleem nga moo tax mu teral boo ñëw nga rusloo ay bokkam rusloo ndeyam am nga rusloo baayam kon bu sa bis ñëwee day korosere balaa nag jamono ji daa dëgër waaye yow lu mu def feem na ko Nabi Nabi mën nañu arrivé continuer ñu ñëwaat seen caali yaa seen ñi may Xaadim Seen mën naa ne Rijaal mën naa Bili mën naa Xaadim Seen ñu fayale seen bambam mi ci liggéey bi waaye ñu dénk la Marichou xale waa bàyyi leen ko lii yéen a ngi yàq programme doxal naa ko bul yàkkamti tubaab ba kàlla nit ñi yaa leen tax a teew nit ñi yaa leen tax a teew yaa yor yaa leen ko doon bokk yaa nekkal say waajur foofu ba góor bu baax jëloo ko